seen diggante mais en tout cas yàq yàkkamti nañu ko. yàkkamti nañu résultat yi taskatu xibaar boobu nga doon wax Nafissatou Diouf moom démb génn na euh, jàkkaarloo euh, ay naataangoom di ay taskatu xibaar ndax mi ngi bokk ci parti bii di euh, Benno Bokk Yaakaar coalition Benno Bokk Yaakaar andi ci ay leeral ndax dañu koy tuumaal ne kon moom ci boppam dafa sàkku ñu voté sanction ci Ismaïla Madior Fall loolee la weddi ñu teewlu ay kàddoom. d'abord parce que dañoo votel seen élection locale da ngay fal ki nga xam da ngay fal ki nga wóolu da ngay fal ki nga bëgg da ngay fal sa doom fal ngeen ma ndax bëgg ngeen ma fal ngeen ma ndax wóolu ngeen ma fal ngeen ma ndax yéen a ma jur. te Tëngéej soxna na liggéey donc maa ngi gërëm waa Tëngéej ndax bi ñu xëyee ba tey ci suba dafa am ñu may dégg ñoo xam ne dañuy maanaam wuruj naan <laughs> Nafi dafa joxe woon consigne de vote boo xam ne maanaam bu leen votel candidat Ismaïla Madior Fall foog naa boo leen laajee Ismaïla major Fall dana leen ne loolu de ña koy wax amuñu xam-xam ba pare amuñu dégg-dégg amuñu dégg-dégg ndax ku dégg li ma wax sànq ne centre de vote yi nga xamante nii euh, fa la waa Colobane dëkk ñoo ko jox seen doom ne ko na fi jëlal ñu waxtaanee ba tey ci euh, Pikine coalition wàllu Sénégal ñoom dañoo devancé waa coalition Benno Bokk Yaakaar 350 ci ay voix la ñu am euh, loolee ka ko xam ne moo di Cheikh Dieng candidat ba ne résultat provisoire yi nga xam ne moo jot a génne 41 011 ci ay voix la wàllu Sénégal am Benno Bokk Yaakaar am 40 661 voix kon nag ñoom ñoo am ndam Cheikh Dieng ay kàddoom ñu teewlu ko. dajale nañu procès verbaux yi département de Pikine yëpp communes. total, la coalition Wallou Sénégal a obtenu 41 contre 40 pour la coalition Ben Bok Yakar, soit de 350 Nous avons la victoire. Victoire Bokhani, moi victoire Bigene qui urne. de le président Macky parti démocratique sénégalais mel ni fu mu nekk nii dafa langaamu ci benn ndam bi nga xam ne gis ñu ni euh, ci local yi ñu génne Birahim euh, ñoom amul fenn fu ñu feeñ seen pois fu mu nekk jamono ji PDS hmm. euh, am na fu ñu feeñ peut-être bareetul parti socialiste am na fu ñu feeñ peut-être bareetul c'est le cas également pour la l'AFP gis nga ces partis dits traditionnels yi nga xamee ni sur le plan politique yàgg nañu fi euh, da boo xoolee de plus en plus euh, dañuy per du terrain mais au profit de mouvements citoyens de mouvements euh, yoo xamee dañu commencé di dugg ci politique également parce que mais Mambay si tu prends le cas de Pastef Pastef n'était pas un parti politique c'était un mouvement gëm sa bopp n'est pas un parti politique c'est un mouvement mais ñooñu tey gis nga percé yi ñu def surtout le cas de Pastef bu Ousmane Sonko kii est après glissé di dugg ndànk-ndànk ci politique ba tey ay politique yoo xam ne yàgg nañ ci politique ñëw di ànd ak ñoom ça dire tout simplement que dafa am benn euh, redistribution des rôles redistribution des euh, euh des objectifs euh, et des cartes euh, je, je dire ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wàllu politique ci biir réew mu Sénégal lu tax parce que dafa am ñu bari ñoo xam ne wóolootuñu politicien fi ñuy woowee politicien entre guillemets nga xamee ni kàddoom du ko sàmm euh, lu mu la digg def le contraire lu mu wax ni dina ko def du ko mës a def ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boo ko dénkee mu jël ay xaritam ay ñoñam dugal te la mu la waxoon du ko def yooyu yëpp dem ba les Sénégalais de plus en plus di glisser di dem ci ñi leen di indil euh, benn touche bu bees muy ces mouvements la regarde par exemple euh, à Kaolack où tu as de plus en plus tu, tu as vu ku mel ni Fadel Barro nekk activiste ñu ràññee ci journalisme également mu ne ni damay dem ci wàllu politique pour xëccoo lenn mooy vrai vrai politique bi ñu wax tu prends un El Hadj Ahmed Aïdara à Guédiawaye tu prends un Ndoye Bane à Pire tu prends euh, Amadou Ba Boulas qui est journaliste qui est devenu maire également c'est-à-dire de plus en plus Amadou Ba Boulas donc journalistes yi citoyens euh, les activistes euh, ba ci à à à Thiès à euh, Euh, quelqu'un qui fait qui fait partie de euh, nu ñu koy euh, ci ci mairie bi dem na ba léegi ànd ak Diop Sy et qui est pourtant un activiste Ardo Gningue qu'on a vu ci coowal suuf yi amoon ci zone boobu jàpp nañ ko ci sax ba doon wax ni dañ ko dóor ak yeneen ak yeneen ça veut dire que de plus en plus les grands partis ou les partis mastodontes wala les partis yi nga xam ne dañ fay yàgg ñu ngi perdre du terrain au profit de mouvements de la société civile de journalistes euh, mais de simples sénégalais yoo xam ne amuñu benn affiliation politique parce que dañu bëgg changer un peu les paradigmes mais surtout dañoo bëgg mos leneen sénégalais yi ñu ci bari dañuy bëgg di seet ñi nga xamee ne tey peut-être ñooñu mosuñoo diriger est-ce que du leen dénk pour xool lan la ñu mën a jox comme ce ne sont pas des politiques pures et dures c'est normal que PDS di ñàkk ndànk-ndànk c'est normal que AFP di ñàkk ndànk-ndànk c'est normal que Parti socialiste di ñàkk ndànk-ndànk c'est normal pour les hommes politiques yi fi yàgg ñuy commencer di perdre du terrain mais au profit justement de citoyens lambda euh, quelquefois de mouvements citoyens euh, ak euh, yu ne mel et ça c'est valable partout boo xoolee c'est valable partout. Euh, euh, El Hadj euh, parti traditionnel yooyu ñuy wax AF AFP parti socialiste PDS seen ëllëg ak réew mi seen ëllëg ci arène politique bi vu résultat yi nga xam ne moom la am. parce que méthode ak gestion bi am ci Sénégal ci wàllu politique moom la Sénégal yi commencé wàccu loolu moo tax day dem yóbbaale parti parti boo xam ni ñun li ñu xamoon ci parti socialiste ak yeneen parti mu mu tollaloon jamono PDS dañoo ko def dañu am ay section sous section am ay fédération di def ay renouvellement jamono jooju xeex yi gënoon metti ci parti ay tendance la doon doon nga nekk parti socialiste ma nekk parti socialiste ku nekk wane ni man maa ëpp doole ci diiwaan bi muy nekk guerre tendance d'ailleurs loolu moo tax Djibo Leyti Ka génn ci parti ba yal na ko yàlla yërëm loolu moo tax Moustapha Niass génn ci parti bi di parti socialiste am na ñeneen ñu ci génnoon ci parti démocratique sénégalais ñu ngi fàttaliku coowu Abdoulaye Wade Ousmane Ngom coowu Abdoulaye Wade euh, Boubacar Sall euh, ah, yu mel noonu dafa amoon da jox parti bi yaakaar ci ndaw li nekk ci parti bi parce que bu ñëwee euh, ñu ñu ni ko am na ko ko ko topp ci ginnaawam bu nekkee leneen nga ñëw jël place am da ngay yéeg ndànk-ndànk d'ailleurs Babacar Diop mii tey gagné mairie bu cees ci noonu la dem ba créer euh, benn mouvement ci biir parti socialiste parce que amoon na amoon na benn démocratie bu am ci biir PS ba nga xam ne ci kuréelu ndaw yi mu jiite am na benn pouvoir bu mu koy jox Barthélemy Diaz mii li ko defal ci wàllu politique moo jiite woon ndaw yi ndaw yi euh, parti socialiste ba ba tey ki gagné yoof nii tey moom mooy njiitu jeunesse socialiste ba léegi ñu ngi continuer garder seen structure ñoom parti yooyu du parti socialiste même PDS docteur Cheikh Dieng loolu moo ko may doole ji parce que daf fi nekk xëccoowul ci seen ay tiraillement yu kii yooyu mais dafa am xam-xam di liggéey gëm doctrine yi nekk ci parti bi ba tey moo ko may dooleem liggéey ak population par contre nag parti yi mujjee juddu comme AFP amul loolu. Hmm. yéen a ngi fàttaliku Malick Gakou li ko génne AFP ak saaga Moustapha Niass ba. ah yéen a ngi ba ba ba ba Malick Gakou ëlbatiku àndaat Khalifa Sall ñu dem ci élection législative euh, yéen a ngi fàttaliku xam ngeen ni euh, APR mu amagul structure yi dëgg gis ngeen ni mu ni mu sosoo. donc ñooñu nag bu fekkee nguur gi dafa mujj ci seen loxo d'ailleurs PS bi am structure yu dëgër mooy li tax élection locale yi dañu joxe seen costion ñoom parce que xam nañu ni Benno Bokk Yaakaar dañ ko taxawal mais fi mu nekk nii dafa gën bousculer ci côté APR ñu bañ a sànni seen i ay njaboot bëgg a garder seen i ay njaboot ñu am doole ci élection ñu bëgg leen a jox yaakaar moo tax ñu joxe caution à part pour képp koo xam ni ni ñu doxal ci benn bokk yaakaar neexu la nga jël bannière parti socialiste dem ci ci élection locale yi léegi nag yooyu yëpp ci manque de démocratie nguur gi di ko doxee parti yu bees yu classique yi di ko doxee parce que dañu bëgg dañu bëggatu ñu leen di contrôler noonu moo tax léegi ay mouvement rek mooy judd ay mouvement am liberté parce que xibaar yi dañuy politique léegi ci ku ko bëgg ñenn ñi dañuy dem def fi leneen euh, ingénieurs yi dañuy politique docteurs yi dañuy politique euh, commerçants yi dañuy politique xoolal mairie jàmm gën jàmm gën bi Fat bintu Ndiaye nekkoon ki ko gagné Moussa dafa bii mooy deuxième bokkam ci élection dafa demoon élection locale yi la passé ña euh, amul xaddiwul mu ñëw deuxième fois après jël raw gàddu gi donc yooyu doxalin yooyu la Sénégal yi gëm léegi ku ci ñàkk bii passé boo ko gëmaatee da nga koy gañewaat parce que mentalité yi moo change léegi ci politique classique bi fi nekkoon c'est révolu quoi jaajëf Aïcha euh, yëgsil euh, ma ma xool mbir yi waaw amul benn problème maa ngi xool sa sa message Pape Mante am na lu may bëgg a wax de dafa nar a jël yoonu boppam. <laughs> voilà euh, euh, Diagne Thiawane Diagne si Mbeng <laughs> nee nañ dafa bàyyi gazon yi gazon bi nga xam ne daf ko offrir euh, ndaw yi mu ngoog <laughs> dafa bëggoon jëlaat gazon yi non non loolu dañuy tooñ rek jaajëf le Birame Touré. waaw kon ñu bàyyi la. ba ci kanam incha allah tuuti seen émission tës. maa ngi lay bàyyi la sa bi incha allah. waaw bàyyi leen ma sama wàll foofu. ayta <laughs> ñu dalal Pape Mante Mboup ci euh, tàggat yaram. borom jam si tiyaax dugaar Pape Mante Mboub démb gaay dañ laa laaj ba sonn ci loo ne waaw ñoo ngi si jàmm alhamdulilah waa sant yàlla bu baax jàmm waaw gën a jaañ si mbeng ah, ah, ci élection yi même nangu na ko nangu lu mu ci manti doon waaw mais image yi gis muy circulé nag loolu moom foogee dëgg la moom ñu ne lan dafay jëlaat gazon yi ah bu ay gazon yu mayoon mais bi teg naa ko fii nii raison eh, moom moo ko fi tegoon loolu rafetoon lii la image yi. image yaa ngi nii parce que man c'est des éléments yoo ne. Euh, moo ñëw di ko wala ay nit ñoo fa demoon. Ah, ay nitam daal d'après information yi am